une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu bàyyi xel ñi ngi am kontaan ak mbégte ci ànd ak yéen ci émission yi nga xamante ne dañ koy def Ah, di jëmee ci wàllum fajum cosaan ñu di ci dalal borom xam-xam yi nga xamante ne dañoo nekk ci réew mi te yàlla dogal ñu am xam-xam boo xamante ne ah, fortaatu wuñ ko waaye ñu am xam-xam boo xamante ne tamit dinañ ci mën a jariñ askan wi jëmee ci képp koo xamante ne am na ay jafe-jafe ci wàllu dundam rawatina ñi nga xamante ne dañu am ay problème ci seen dund ñu fas yéene leen a dimbali jaaree ko ci kàttanu suñu borom tax ñu jóg seet ñi nga xamante ne ay borom xam-xam lañ tey jii ñu ñëw fii nga xamante ne moom moo di Touba 28 ah, ñu fekk fi jëmm joo xamante ne nag dootuñu ko présenté ci Touba ak li ko wër waaye dootuñu ko présenté ci àdduna wërngal këpp ndax xam-xamam ak li nga xamante ne moom mooy ah, dayoom ah, toll na foo xamante ne àdduna ñu bëri xam nañ ko ci li nga xamante ne moom mooy wàllum fajum cosaan añu ñëw fii ci Touba 28 fekk fi ki nga xamante ne moom mooy Serigne Abdoul Khadir Ba Djili di jëm joo xamante ni bëri na ay jàngoro yu muy faj waaye tamit bëri na yëngu-yëngu yoo xamante ni mi ngi ci yëngu ci wàllum ñaan kon xam naa dañ koy jox kàddu gi rek moom mu nuyoo su nuyoo ba pare ñu doog dugg ci laaj ak tontu yi aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim euh, Cheikh Moustapha maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk yi ñuy seetaan ak fa mu ñu mën di seetaane moo xam ci biir réew mi ak ci biti réew di leen ziara di leen ndokkeel ci weeru kor yi ñu génn di leen baalu àq ñoom ñëpp di leen baal àq di ñaan suñu borom boole ñu jéggal te yàlla boo euh, nangul ñu suñu koor te boole ñu ca xaaj ba jëm déwén di ziara saahibul fadilati cheikh mahamadul muntaka ayadahu llah wa nasara noonu la ñuy siyaare mboolem kilifa ak diine gune ci réew mi wala kilifa ak aada foo nekk suñ borom defal la ndimbal defal ak wér ba li nga yéene réew mi wala ak li nga yéene diine ji suñ borom kàttanal la ba nga yàggal ko mm-hmm. comme ni nga ko waxee Cheikh Moustapha dañuy bëgg lool ci toog ak yow mm-hmm. ndax euh, man gi nga man sa liggéey ak it ak booleeg xam gi ak tee gi mm-hmm. kon ñu ngi lay dalal ci seet si gi ñu seet di ci am mbégte di ñaanit suñ borom dimbali ñu ba euh, ñu nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ak di ñuy déglu ñu mën a génne loo xam ne danañ ci mën a jariñu wala boog loo xam ne daanañ ci mën a dolliku bisimilah. jërëjëf sëñ Abdou Khadir Ba Djili nekk fii ci Touba 28 képp koo xamante ne euh, bëgg na ñëw seet si ko mun na ñëw fii ci Touba 28 boo dikkee rek ci bitik américain bi foofu boo fa taxawee euh, di nga boo laajtee sax mu mu ñu wan la ko wala nga woo ko téléphone incha allah dina joxe numéro téléphone bi léegi njëgul. <coughs> ah kon sëñ Abdou Khadir dañu daal dugg ci li nga xamante ne moom moo di jàngoro yi nga xamante ne dina di gaar doomu aadama ah, ndax nit ki ci boppam am na jàngoro yoo xamante ne dina koy gaar waaye dina bëgg faju waaye faj mu baax tamit faj mu wóor lañ ca tàmm ah, jamono ji ñu toll bëri na ñoo xamante ne siti daf leen sonal parce que siti jàngoro jolo yoo xamante ne moom moom doy na waar ah, siti ci boppam lan nga ñu ci mën a jàppale ak ak lan nga ci mën a wax alhamdulilah waa xam nga siti hmm. feebar la comme feebar yëpp day tax nag mu naqaree faj day jàngoro joo xam ne daanaka li ñuy dunde ci la nekk moo tax ñaaree boo ko fajee ñaare mu ñëwaat waaye wàllu siti moom euh, wax dëgg yàlla màndarga yi wax nañ ko fu baree baree bari koo xam ne yaramam day xasan wala muy génn góom wala ay tànkam di xar yu mel noonu siti nag lu muy def ci nit ci biir loolu mooy màndarga yi wane ci biti waaye ci biir mën naa téye jigéen ba du am doom mën naa téye góor mën naa jeexloo nit yu baree bari siti daf koy def waaw léegi nag sites yi xam nga day am feebar soo koy faj euh, da dangay da ngay boo joxee garab ba noppi dangay xam li muy bañ su ko defee nga nga nga nga bàyyi ko. Mm-hmm. soo ko mënta bàyyi lépp it xaj na dana jafe nga wàññi ko. Mm-hmm. mooy tax paj mi day am résultat. waaye moom it yàlla dimbali nañ ci am nañ ci wax dëgg yàlla ay garab yu ñu ci joxe yoo xam ne yu ama am solo la. Mhm. Mhm. d' accord ah, ngeen ngeen kon képp koo xamante ne yàlla dogal na nga am siti siti eh, ba tey duñ ci jóge yan lay gën a feeñal ci nit waaw wax naa ko léegi masalan sa yaram di xasan. Mhm. am na ñoo xam ne fi ne buñ sangoo ba pare rek seen yaram day fet fiti kooku mandarga la ci. Ah, am na si ñoo xam ne léeg-léeg seen diggante baaraamu tànk yi day xar. maanaam day xar di mel ne lu génn ndox ba ci am na ñoo xam ne sax seen suufu tànk yi day tàng yooyu yëpp fi mu ne siti moo koy def siti dana jàpp nit ba day jeex tàkk maam da ngay lekk waaye da ngay da ngay lekk waaye da ngay jeex mm-hmm. yooyu yëpp fi mu ne màndarga siti la mm-hmm. maanaam nag mën naa wax ne jamono ji moom képp koo xam ne gaanuwut rek am nga siti mm-hmm. am nga siti ko amul gaana rek am nga siti waaye nag day ëppalante doole ci nit ñi ci nit ñi daal waaw d'accord euh, kon mbokk yi ñoo ko déggandoo lu jëm ci wàllum lii di Siteu képp koo xamante ne yàlla dogal na mu gaar la mën ngaa ko ak moom ba tey ñu demaat ci beneen liggéey boo xamante ne gis ñu bëri di ko di ko liggéeyee euh, muy nekk ci diggante big ak euh, li ñu tuddee bigi fëtër ak fëy muy ci wàllum xaatim ndax am tamit di nga di faral di yëngu ci xaatim alhamdulilah waaw xam nga xaatim moom bari nañ ni ci wax ñoo xam ne wax dëgg yàlla seen xam-xam dafa des ci wàll wow lu bari mm-hmm. Euh, xam nga xaatim arab mi ngi ko tuddee al awqaaf mm-hmm. boo ko defee mufrad muy al waqf mm-hmm. al mooy li ëmb xaatim bi lépp mm-hmm. ci biir xaatim bi nag am na lu ñuy tudde ad dila am na lu ñuy tudde az ziwaaya xaatim nag wax nañ ne bi e, suñ boroom wàccee suñ maam aadama la ko xa la ko xamal adat ndax xaatim fi mu ne li wax ji li muy bari bari bari génnul adat te alquran moo wax ne wa ahsayna kulla shay'in adada ba noppi li araf maanaam jëmmi araf ci boppam mm-hmm. suñ borom da cee def ay kéemtaan ak ay mucjisa maanaam jëmmi araf ndax dañuy wax ne as sirru fil adadi maanaam borom xam-xam yi nga xam ne ñoom euh, gëstu nañ ci euh, maanaam lislaam nag li nga xam ne jamono ji moo ko gën a gën a tardel dañoo ubbiwul wal gëstu maanaam dañ dul yaatal seen gëstu ci fànn yu nekk masalan fii ne boo jëloon alquranul karim nga xam ne ictichaafaat yi ci am sax waa xarbu maanaam waa occidentaux yi ñooy ñooy def ixtichab ñooy def ixtichab yooyu bu ñu demee dem ba dem ba gis ko ci alxuraan ah ñu ñoom ñoo ñu koy wax ñu soog koo xam maanaam daal ñun dañuy topp seen ginnaaw. Mhm. loolu lépp nag lu koy indi mooy euh, tënk xam-xam te xam-xam waree su ko tënk. Mhm. ndax alxuraan dafa wax ne maa faral naa fil kitaab bi muy shay ginnaaw suñu borom bàyyiwul dara ci téere bi lépp luñ bëgg rek ak fànn bu nekk. Mhm. fi mu ne am na ci alxuraan. kon boo jëlee wàllu xaatim. bala ngaa wax wàllu xaatim da ngay wax wàllu adat bala ngaa wax wàllu adat da ngay wax wàllu xuruuf kon xuruuf ci boppam su ma la ko doon misaal mooy jëmm adat mooy ruux kon ñaar yooyu mënuñoo mënuñoo tàqalikoo xuruuf ak adat mënuñoo tàqalikoo maanaam xuruuf mooy jëmm ji mën nga ni mooy màdd bi adat mooy mooy ruux gi mën nga ni mooy mooy taaxa bi léegi nag ci ni nga koy jàng da nga koy jàng loolu xam-xam la boo xam ne il faut que da nga koy jàng parce que dafa am lu ñuy tudd al fard wa zawj adat loolu ñaar yooyu moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko composé al fard ak ak zawj mooy pair ak impair ba ci aaya alxuraan yi dafa am al adat al adat ak al dafa am al zawj ak al fard dafa am euh, al adad fi nafs ah, ak al adad fi l xuruuf yaa ngi may dégg wala al fardu fardul fard wala zawju zawj wala zawjul fard mhm. yooyu yëpp il faut nga xam ko soog a mën a xam jëmmi xaatim ni nga koy duggee ak ni nga koy génnee ak lim laaj ah ndax yooyu yëpp dafa am charte xar maanaam xam-xam la boo xam ne su fekkee maîtriser nga ko moom lépp loo ci bëgg a def man nga ko mhm. te xaatim moom képp kuy dund amul koo xam ne xaatim mënu jàpp kuy dund rek am euh, xaatim mën na laa jàpp ba mu des xutbul xaws xutbul xaws kese lañu wax ne xaatim mënu koo jàpp ndax ginnaaw mooy xalifatullahi fil ardi rawxaan yi bala ñoo def dara dañuy dem ci moom tàggu moo tax xaatim ñëpp la mën a jàpp moo tax xaatim moom xam-xam la boo xam ne dañ koy jàng mm-hmm. waaye ñu bari damay dégg ñu ci wax nii rek waaye ci kaw gi rek lañ xam waaye ji jëmm jëmm dugg ñu ci biir ci xoos yi ba wax ci loo xam ne mm-hmm. nit ñi mën nañ ci mën nañ cee jaruñu wala ñu ci euh, faj aajo Mm-hmm. ñoo ko déggandoo muy xaatim loo di loo xamante ne ñu bëri ñu ngi koy gis ñi nit ñi di ko jëfandikoo mm-hmm. laajte gii def ciy baax nit ñi gën a xam lan mooy solo si dëgg dëgg dëgg mm-hmm. ñu daawaat ci beneen laaj boo xamante ne ba tey xam naa duñ soree euh, xalwatu mooy dangay gis nit ki sax euh, di dugg ñun ñu naan euh, diw sàngam day dugg xalwa loolu tamit nga jàppale ñu ci ndax xëy na mooy itam bëri na loo xamante ne ñu ngi koy ñu ngi jonjonteeg moom ci dund gi waaw xalwa tamit xam nga baatu arab la xalwa moom tamit baatu arab la boo xam ne xalwa baatu arab la boo xam ne mooy tudd moo moo tudd wéet ni yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ko inna allah yuridu al abdal xafi maanaam koo xam ne da ngay wéet di làqatu di jaamu yàlla léegi nag bu dee ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo wàllu lasaraar nga xam ne lasaraar bi ñuy def ngir faj aajo ñaare ngay wéet di ñaanal nit ki kooku mën nga koo jaare ci xaatim mën nga ko jaare ci musallas wala murabba wala muxammas wala musaddas alfu buyut ëpp na sax alfu buyut waaw mi ngi mi ngi may aajo ci kem xaatim bi nga mën rek. Mhm. su ko defee nag su fekkee xalwa la. Mhm. Eh, su dee ci musallas nga ko jaarale dafa am noo koy liggéeyee ku ko mën dëgg musallas du weesoo yow ñetti fan te bu génnee dana la wax lu leer. Mhm. te ñaari sax buy liggéey koy liggéeyal xalwa dama ne man ku may liggéeyal xalwa bala ma noppi yow sa jëmmi bopp dana am luñ la wan. dana am luñ la wan loo xam ne da nga xam ne kii. mu ngi may ñaanal. su ko defee nag xalwa tamit am na yeneen yoon yu ñu koy jaaree yoo xam ne yooyu ay sirru la lu jëmmi xaatim la mën ngaa def xalwa boo xam ne xaatim la mm-hmm. mën ngaa def xalwa beneen xalwa boo xam ne ci yeneen yoon nga koy defee macha allah kon mbokk yi ñoo ko déggandoo ba tey ci wàllum xalwatu muy wéetaay nga dégg nu mu ko tojee nu mu ko faram-fàccee jëmee ci wàllum xam-xam loolu nekk loo xamante ni lu am solo la ba tey ñu dugg ci jafe yi nag ndax naa ne bëri na ñoo xamante ne ñu ngi ñuy seetaan actuellement wala boo ñu ñuy déglu te bëgg nañ ku leen jàppale ci yenn jafe-jafe yi ba tax na ñu jëm ci jafe-jafe yi nga xamante ne xëy na suñ mbokk yi nekk bitim réew ñoo koy ëppale ba ci biir réew mi sax am na ñoo xamante ne dañuy am ay jafe-jafe ci wàll woowu muy di jëm ci wàllum ndax gis koo xamante ne fii ci réew mi sax day am kayit euh, problème ci wàllum kayit lool lool lool lool lool ndax am tamit ay wàllum kayit nan nga ci jàppale jàmm yaa xam nga ñaan moom bu fekkee xas nga ba xam yoon wi maanaam aajo bu nekk boo ñëwee day da xam noo koy tàmbalee ak la muy laaj ak li muy laaj euh, su ko defee nag bu fekkee ci loo xam ne wàllu kayit la nga xam ne ñaara suñu mbokk yi ci nekk bitim réew ñoo koy gën di yittewoo loolu moom boo xamee fooy jaar rek. am na ay kayfiyaat yoo xam ne dana ko yombal te bu boobaa yàlla mën naa def mu bañ a yàgg su fekkee loo xam ne dafa am lu ko téye moo xam sarax la moo xam gàllankoor bu nekk ci moom la ndax nit dana bëgg loo xam ne moom ci jëmmam mooy ne mooy am gàllankoor moom mooy am gàllankoor boo xam ne mooy ne ci jëmmam benn gàllankoor bi mën naa nekk mu am ay yëf yu ko yàqal mën naa nekk mu laaj sarax boo xam ne ba léegi génnewu ko yooyu yëpp gàllankoor la bu ko defee nag yow ci biir liggéey bi ngay liggéey wala boog bala ngaa tàmbali soo càmbaree ay mbiram danga xam gàllankoor bi bu ko defee nag yow sa jëmmi bopp soo defee li ngay def yàlla mën naa mën na la mën laa dimbali loolu daal di jàppandi. Mm-hmm. ba tey xanaa ni ngay liggéey doomu aadama yi bala ngaa def loolu lépp xanaa da koy seetal seet tamit xanaa da nga ci yëngu. waaw xam nga seet dafa am mbir yoo xam ne maanaam seet buñ koy wax rek fi ne bu ñu fuñ fuñ tuddee seet rek mooy aaju bi yow amoo ci lu leer. Mm-hmm. waaye loo xam nga am nga ci lu la leer loolu jarul seet. jarul seet loolu jarul seet. mais yow di nga seet maanaam maanaam dinaa seet man bi xam nga yow bind naa ci ay téere yoo xam ne. Mm-hmm. maa koy jàngale yoo xam ne. Mm-hmm. bari na ci ñoo xam ne ñu ngi ciy jariñu ci wàll woowu. Mm-hmm. waaye seet fii ne ki nga xam ne dafay liggéey tur yàlla dëgg. wala sëriñ dëgg dëgg dëgg am na ci yenn aajo yoo xam ne la laata moo koy dikkal la suñu suñ borom di di ko ci xamal dara. di ko ci xamal dara fii na bari na ñoo xam ne sëriñ yoo xam ne bu ñëwee duñ la seetaan fekk boobu lu bari dañ koy xam ci yow waaw am na ajo yoo xam ne jarul seet am na aajo yoo xam ne nag jar na xool ko ba xam lu muy laaj waaye seet tekkiwuñ ni ku ñëw ci yaro danga ko war a seetal. waaw xam nga ubbeeku nag moom dafa am solo lool ndax jamono bi daanaka euh, lépp am am koy def euh, maanaam nit ñi am na ci ñoo xam ne ñi ngi am waaye dañ dul xam dañ dul xam euh, seen am am fan lay dugg maanaam lu ñu am rek day dem. Euh, loolu benn la ci gàllankoor am ci ñoo xam ne am am dafa jafe nga xam ne seen yaram ci boppam mooy taq maanaam seen yaram mooy lu mel ni umute loolu it benn la ci su ko defee day am loo xam ne day am ndab li ndab li nga war a def bala nga cee def ñam da nga koy xool bu baax waaw su ko defee nga xam gàllankoor bala ko gàllankoor nag nga soog ko defal wàllu ubbeeku ndax soo tëbee tëb rek def ubbeeku fekk dafa am gàllankoor mën ngaa bañ a am résultat. waaye su fekkee jaar nga ko fa nga ko jaare moom ñaare li nga koy jox li nga koy jox su ko jëfandikoo ay fan rek da ciy daal di gis bunt man moom ñaare sama liggéey moom dama koy teg ci yoon ba ñaare ko képp koo xam ne ah, li ma lay defal defal naa la ko moom gisuma dara moom doo ko wax ma ko hmm. waa Dakar nag xam naa bis yi ma fay nekk yi ci ëpp samedi dimanche ak altine moo ci ëpp waaw samedi dimanche ak altine yeneen bis yi moom Euh, fii laa ko nekk Touba ci ci sama kër ñaar ku ma soxla fekk may fek wala nga yónnee rek. Hmm. yaa ngi soog laaj nag laaj bu xaar bu am solo lool sax ndax sarax alxuraan da ko tudd yoon yu bari euh, tudd asaka moom moo xam ne muy farataal ci ci ab jullit bu ko war a génne yonent bi na xuz min amwaalihim suñu borom wax na xuz min amwaalihim biha kon sarax day laabal alal di laabal jëmmi doomu aadama ji moo xam sarax boy farata muy asaka moo xam sarax boo xam ne yow yaa ko coobare woo sarax boo xam ne yow yaa ko coobare woo dana la jariñ ala kulli xaalin ndax alxuraan ci boppam lan tanaalul birra xataa tunfiqu mimma tuhibbun lenn ci li bëgg mag ñi wax ni li nga gën a bëgg dee koy joxe waxtu wa waxtu wa nga koo uh, ñàkkee maanaam li nga gën a bëgg waxtu wa mu ci yow dee koy joxe ñu ne su bu ñëwee rek dana bari euh, sarax nag dafa bari ay pàcc yooyu ay sarax la yoo xam nit ki ci boppam moo ko coobare woo ngir yàlla waaye buñ fàtte ne yonent bi wax na ne euh, te daawu mardaakum bi saraxaat seeni tawat de leen koy faje sarax loolu muy beneen junñi bu ci indi kon mën ngaa dégg ne sarax ci boppam lépp mën na ko mën naa mën naa faj jàngoro mën naa ubbi wërsëg maanaam lépp loo aajowoo rek sarax mën na ko ba ci jëmmi ñaan ci boppam sooy ñaanal nit ki ba bu muy nangu ñaan bu muy nangu faaw daan la woon sarax bu bu muy def waaw ndax moo tax euh, ahlul nasara wax ne sarax mooy caabi bi nga xam ne mooy ubbi bunt bi fi mu ne am soo xam ne ñi nga xam ne mën mën nañoo ñaan dëgg bala ñoo bala ñoo ñaan bala tàmbali dañuy njëkk saraxe ndax mooy caabi bi nga xam ne mooy ubbi noppi day day day day fekk ay gàllankoor yu bari ba noppi day ubbi wërsëg jëmmi nit ki nag mën naa am ay sarxi boppam yoo xam ne benn suñ borom mën na ko koy wan bu tëddee ci ay nelaw yoo xam ne dañ ko koy misaal benn nag mën na ko bañ a xam mën naa leer nag ba nga xam ne dana xam ne lii sarax la wa illaa mën naa dem ci boroom xam-xam mu xoolal ko benn mu listixaaral ko wala mu xoolal ko wax ko saraxam bu mu war a def te dama ne sax man ñaara néew na nit ki euh, dara di ko dal te suñ boroom wanu ko sarax bu mu war a génn ba ci ki nga xam ne dafa war a faatu sax fi mu ne ni euh, mag ñi di tudde njot ak am na ci ndax buñ fàtte ne alxuraan moo wax ne wa fadaynaahu bi zibin azim loolu maanaam Seydina Ismaïl euh, xar lañ ko jote kon jëmmi ko tawat fi mu ne am na xeeti sarax yoo xam ne dana tax mu dundaat dana tax mu dundaat yu bari waaye li ci am solo mooy da dem ci ki nga xam ne xam na ko euh, am na xam-xam mën na laa xoolal ci bu wér wax la lu wér nga génn sarax bi nga war a génn bu ko defee ndax am na fi mu ne bari na ci aajo yoo xam ne jërul sax ngay ñaan boo xamee sarax bi rek day daal di régler problème bi fi am na ci aajo yoo xam ne soo xamee sarax bi rek euh, day daal di régler problème bi leneen li ma ci bëgg a yokk tamit nga xam ne mën naa ko baaxee ñi nga xam ne ñu ngi seetaan mag ñi dañ daan wax ne kuy faral di sarax yére yére bi ngay sol ngay faral ngay faral di ko joxe. tawat du la yomb wala boog boo tawetee du metti wala boo feebaree du metti boo boo dee faral di joxe dàll moom tamit tànk yu metti du la sonal yooyu yëpp fi mu ne mag ñi dañ ko daan seetlu nga xam ne ay tëj ba lañ ci daan def di ko seetlu muy am ay résultat yooyu yëpp fi mu ne nit ki mën na koy coobare du ko joxe te du du te lu baax lay doon ci moom fi ne bari ñoo xam ne dañoo feebar tëdd nii tëdd feebar te yére yére yére yére yére boo xam ne dafa lakk comme jigéen yi bu ñuy paase yére yi lakk noonu fi ne koo xam ne feeg yaa ngi koy sol kooku ak wér dana la jafe waaw loolu nit ñi nañ ci bàyyi xel bu baax yére bu lakk nii moom koo waxuma la nga koy sol sax waaye boo ko boole ci sa yére nga koy dencaale nii rek kooku wér daf lay jafe ndax gàllankoor la moo tax ñaari mag ñi yooyu yëpp dañ ko daan seetlu dañoo amoon ak seetlu waaw dañoo amoon ak seetlu ba ci darab fi mu tamit bu lakkee rek génnal nga saraxe ko bu dee yëri tamit génn ko nga saraxe ko waaw fi mu ne am na ci ñoo xam ne ñu feebar fu ne ñu dem fa fekk boobu gàllankoor gi dafa nekk ci lu ñuy sol buñ ko xamee rek ba génn ko day daal di am jàmm. Mhm. waaw cat moom lépp loo xalaat ci nit rek ci gàllankoor cat mën na koo def waaw nit dama ne nit sax day catu boppam fi mu ne waaw ah nit dafa am làmmiñ de ci cat làmmiñ koy def waaw fi ne nit mën naa gis boppam daal di catu boppam te du ko yëg nit day catu boppam. waaw su ko defee bari na gàllankoor yoo xam ne cat daf koy def fi mu ne cat mën na laa téye ba nga bëgg jug liggéey doo ko mën nga xam ne sa sa yaram wi day deewet waaw yooyu yëpp fi mu ne cat daf koy def ah, te képp koo xam ne nag ah, nit ñaa ngi lay xool yaa ngi am dara nit ñi dala xool ngay romb ka dem cat mën na laa jàpp cat mën na laa jàpp maa ngi nag dañ daan wax ne cat moom comme karaw guy sax ci nit la dangay def bu sëqee nga wat nga nit ñi nag li tax ñuy naqaree ñaanal Euh, dañuy sangu benn yoon ne sangu woon naa cat fekk boobu bañ koy dee sangu ay at la waaw maanaam euh, gàllaaj lu tax nit ñi tuddee ko gàllaaj maanaam gàllool gàllool la laaj waaw te dañuy wax ni léemaay tamit euh, waxuñu ne kuy lée ku ku kuy rek dara du la jot waaye niñ ko ni nga ko mën a misaale ci maanaam nga tëj sa buntu kër tëj bu dëgër nit bu ñëwee ba koo dajji faaw na nga yeewu nee na noonu la gàllaaj mel waaw faaw da nga yeewu wala boog nga dajoog njuuma dajoog loo xam ne dafa lay lor su fekkee borom gàllaaj la day def ba sonn bàyyi wala nga jekk ko mu bàyyi gàllaaj loolu loolu lay jëriñ maanaam du yokk aw fan waaye nag dana ko rafetal waaye caagiw ne wut da ngay sangu benn yoon rek léegi yow li des ci sa dund waratoo sangu parce yaa ngi génn ndax am njàpp la rek mën naa toj mën naa toje foo xam ne doo ko yëg yow sa jëm bopp sax mën nga ko kon nag moo tax looy dafa ko defaat la bañ a bàyyi sa bopp looy dafa ko defaat la waaw bu wàllu cat moom eh, dañ ci def ay càngat yoo xam ne moom bu fekkee koo xam ne moo ko yàqal bu soobee bu ko bu ko jëfandikoo rek day daal di set ci moom wecc hmm. waaw bu liggéey moom bu fekkee koo xam ne liggéey moo ko jàpp moom man fi changé laa koy dindi waaw lu ma ko jox lu muy suuroo rek fi changé laa mu denc ci moom mu denc ci moom léegi nag am na yeneen gàllaaj ak yeneen càngat yoo xam ne soo ko defee moom nit ku jóg di la liggéeyati moom moom moo la ciy ëppale moo tax liggéey nit wóorut maanaam li ngay liggéey nit ki nga dem yow fexe noo avancé moo moo moo ëpp solo tey tamit euh, nit ñi tamit loolu war nañ ci bàyyi seen xel ndax nit danga ngaa war a fonk sa bopp fonk sa bopp mooy yow li nga li nga li nga sonn ba jot ko waroo xoole nit di ko foqati ci yow wala nit di la ko yàqal waaw mooy nga war di ñaan lu di ko lu koy gën a téye ay waroo waroo seetaan rek ba am problème nga soog a jóg loolu su boobaa ay ay ay ay jafe-jafe lay lay doon ci rek. Mhm. waaw xanaa bala ma jàll ci télé rek ma am lu ma baaxee mbokk yi ñuy déglu ci wàllu liggéey boobu ñu génn léegi. la hawla wala quwwata illa billahi alil azim ku koy def waxtu woo xëyee nga dajale se ñaari tànk nii bala ngaa wàcc sam lal nga wax ko fukki yoon ak benn tifle ko ci kooku liggéey waxuma la nit liggéey waaye liggéey boo jógee rek day day daal di toj day daal di toj loolu moom du wér la loo xam ne moom baaxee na ko ñëpp ñoo xam ne euh, ñu ngi may seetaan ñu tëlu wóor a wóor la ba ci koo xam ne dafa am tànk yu métti sax nga xam ne liggéey moo koy waral su ko tey def da ngay daal di gis léegi mu mu daal di sedd. laa hawla wala quwwata illa billahi alil azim yaakaar na euh, yonent bi dafa waxoon ne kanzun min kunuzil janna maanaam ndàmbala yu bokk ci ndàmbal àjjana waaw yu bare bare nag lañ ciy liggéey waaye loolu moom ñu ngi koy baaxee mbokk yëpp fukki yoon ak benn onze fois boo xëyee rek boo yeewoo bala ngaa wàcce sa sa sa tànk rek nga wax ko fukki yoon ak benn moom liggéey bu ne ci yow liggéey boo joggi day daal day day day day day yàqu. Mhm. nag télé dafa am loo xam ne feebar la ndax xam nga feebar day ñaar day boo xam ne comme liñ doon wax léegi maddi la ak boo xam ne ruux yi la. maddi bo mooy mooy mooy bi nga xam ne moom la yaram wi di di di indi masalan moom dysfonctionnement ci ci ci ci ci ci ci yaram wi benn sidit yi mooy fat nga xam ne deret ji ni mu war a circuler ci ci sàkkara si du fa yegg moo xam graisse la moo xam dafa am jabet nga xam ne euh, deret ji ni mu war a daw dëgg-dëgg du ne moo xam dafa am problème cardiaque moo xam dafa am crise cardiaque moo xam dafa am hypertension moo xam dafa am poids bu bari yooyu dana indi tële yoo xam ne moom jismaani la yooyu soo koy faj comme garab yi naturel yi nii moom nga koy faje gis naa nag ñu bari ñoo xam ne dañuy jël ay comprimé di ko jëfandikoo waaye loolu moom baaxul te loolu bu xasee bare sididi rek kenn dootu kenn dootu ci man dara man nag maa ngi ciy defal garab yu baax a baax yoo xam ne yu efficace la yoo xam ne naturel la soo koy jël day day day day day fattaat day day fattaat siddit yi ba ni mu doon doxee mu doxee ko normal soo ñëwee ci wàllu ruux yi yi nga xam ne moom docteur mënu ko teg bët loolu benn rab daf koy def euh, takk xala daf koy def benn mën naa nekk sarab rab xam ne moo lay téye wala rab sa rabu soxna nga xam ne moom ba tey moo lay téye fi mu ne yooyu yëpp daf koy def su fekkee nag su fekkee rab moom moo koy def ba nga xam ne rab la tëleeg rab la man boo ñëwee fi saasi laa koy dindi. fi changé moom laa koy dindi bu fekkee tërale boo xam ne dafa laaj traitement comme garab yi ñu lay jox nga xam ne jismaani la moom it boo ko jëfandikoo ay fan dangay gis sa kàttan ni muy ñëwaatee. Mhm. waaw feebar yooyu moom daanaka damay def fu ma waxee rek fu ma defee waxtaan dama koy tudd ndax ñu bari dañoo jàpp ne bu wér te man fajal naa ko ay nit ba ñu wér ñoo xam ne seen analyse mu ngi fii ci sama portable waaw ba ba ci barki dem koo xam ne bi mu demee ci hôpital docteur bi da laaj xanaa doo ko doon jël ay garab commencement bi sax nangu ko a wax ne ay garab wolof laa doon naan xam nga boobu ñaar ñoom naa ñu ñoom dañ la tere dañ ciy tiit ginnaaw bi mu na ko man garab wolof laa laa laa jël waaw mu ne ko ah man de ko ma gisutuma dara ci yow gisutuma jox na ko sama numéro sax waaye xam naa ne euh, affaire africain rek waaw foofu tamit dama ci dama ci am lu ma xaw a kii daal ndax dama jàpp ne xam-xam moom boor bu mu nekk bu amee njariñ rek dañ ko war a jël bokk ko ñu ñëpp ñu jëfandikoo ko ndax loolu loolu mooy avancé loo mooy avancé loo réew mi waaye hépatite moom man dama koy faj ba mu wér du ko dànk te garab yi ma lay jox soo ko commencé jël une semaine da xam ne da nga wér ndax yu bari yi nga daan yëg ci sa bopp dootoo ko yëgati. Hmm. waaw asma tamit kasaalik yooyu moom dama koy faj ba mu wér amul dànk rawatina su dee xale ñaari yoon laa lay jox garab wala ñetti yoon nga tàggoog moom asma moom daanaka ñëpp xam nañ. ñëpp xam nañ euh, effet yu muy def ci ci ci ci nit moom itamit yàlla dimbali nañu si am nañ garabam goo xam ne day wér moom duñ ko dànk su dee mag nag dana jël tuuti temps waaye su dee xale moom du mat un nga mu tàggoog moom. Mhm. waaw ngal tamit damay bëgg toujours di ci wax parce que ngal damay wax ne garab gi koy faj garab gi garab gi nga xam ne man moom laa ci yor di ko faj ku ko amul wala ku ko xamul mënoo koo faj. léegi ngal ci boppam dafa am ngal boo xam ne comme genre cité la nga xam ne ay góom lay def ci yaram loolu français da koy tudd pays de ngal comme loolu xeetu cité la cité léegi nag dafa am beneen la ñuy tuddee ngal boo xam ne taab lay doon nga xam ne euh, nit ki mën na ko yor fukki at wala fukki at ak juróom di wër ko ko ko fajal du ko gis man ne am bari na ñu ci dayal ñoo xam ne ñii fukki at la leen dal ñii ñeenti at ñii juróom benn at. te biñ ñëwee ci man lañ tàggoo moom parce que gal saxla wuy nekk ci biir day gas nag di dem bu fekkee daalaa dal foo xam ne pàddu la moom du yàgg ak yow ma fekkee daalaa dal foo xam ne tànk la wala loxo kooku mën naa def ay at yu at yu bari waaw léegi nag faj mi moom dafa jafe lool man ngaa gis junniy sëriñ junni laa la wax junni doo gis kooku ci mën a faj waaw su dee nag mën ngaa faj góom bi nga faj fii mu dem bënnaat fële nga fajaat fii mu dem bënnaat fële waaw moo tax mu naqaree faj. Hmm. d'accord xam naa hmm. bori tamit boo gisee ma ciy wax moom tamit euh, suñ borom dama cee defal ci alxuraan loo xam ne jëlale naa naa faj mi waaye man bu ma la ko fajalee yàlla mën naa def euh, lu lu mu néew new fukki at du la fii ak fukki at moom du la dalaat waaw fii fukki at du la dalaat. Hmm. waaw baax na di di la sant rek ci ci dalal gi ñu dalal di am mbégte tamit di jégalu bu baax ci kàddu yi su fekkee am na rëcc rek ci maa ngi koy jégalu lu ci jub ci suñu borom la euh, di wax nag wax ji dafa baax ndax maa ngi dañuy wax xam-xam moom taat bu ko doon wut ala kulli moom dana ko yor waaw du lu bon bon taat bu ko moom dana ko yor waaye nag jamono jii ñuy wax dafa bari moo tax ñaare ñi nga xam ne yàlla ma xamal na leen dara ñu génn di wax ndax baax na dont da ngay dimbali benn nit wala ñaari nit mu jël ci ak gindiku baax na kon nag ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax ba beneen jataay incha allah wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin وجنا به ينفرد